داري وثبته بالهادي الوفي وعليكم bokki jullit yi bokki taalibe yi rawatina nun ñi suñ boroom tawfeexale nu dëkk tuuba di dëkk Sëriñ Touba bu tedd boobu ñoo ngi nuyu ñëpp ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mii ginnaaw bu nuyoo taalibe yëpp rawatina ñu yu mel ne da yam rek di xamle moom li yitteem mooy yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp mucc ñëpp ak wér yéene bi yooyu nag lépp lu mu yaakaar ne dana yombal yooya fuñ ci toll lam ca war a digle dana ko digle lam ci war a leeral dana ko leeral lam ci war a tere dana ko tere loolu nag buñ ko bëgg buñ koy wax liñ ci jublu mooy dëkkub sëriñ Touba bi ci di Touba ñëpp noo xam ne dëkk bi rek moo doon yittee sëriñ bi c'est ba sëriñ bi bind xasidaam googu di Matlabul Fawzayni ñu tudd ko Touba al kon lépp luy aar Touba lépp luy gën a sellal dëkkub Touba loola mooy li ko gënal ñu di ko defee di ko doxe di ko waxe tey nag mu woon fi jëwriñ li muy liggéey loo ci Touba ñu xoolee jataay bi danañ ci gis sous-préfet ndaam muy sëriñ Mansour Diallo ñu xam ne mooy yilif sous-préfecture bi wër Touba yëpp nekkal fa ki borom réew mi ñu gis sëñ Abdou Lahad Ka mii nga xam ne mooy maire Touba te moom itam mu de muy taalibe sëñ Touba buy liggéeyal sëñ Touba ci Touba ci ay ndigal li ay kilifaam ñu di ko taxawaloo dëkk ba muy meeru dëkk bi gis nañ ci jataay bi ñoo xam ne ñoo sëriñ Abdou Lahad Ka ñoo bokk liggéey boobu sëriñ Mamoor moom sëriñ Basiiru moom sëriñ Fàllu mi ngi mi ngi nii sëriñ Fàllu Mbàkke mi ngi nii sëriñ Aliou Ñang bokk ak sëriñ Abdou liggéey ci meeri Touba la bokk loolu nag li ko waral moo di ngir kaaraangi dëkk ba ngir wérug yërëmu dëkk bi ngir seetlu dëkk bi daa tax bu yàgg lañ tàmbalee xalaat marché gerte bi ci gaar bu ndaw nu ñu ko jëlee barab bi mu nekk yóbbu ko fu mu xaj fu yaatu moo xam ne mooy gën ci ñiy liggéey ci liggéey ba waaye mooy gën ci ñiy dëkk ceewet ga ak dëkk bi yëpp te gis nañ ne gouvernement bi jóg nañ ci àlli mbedd dëkk Sénégal gépp fu dara tege loo xam ne nekkul ci kër nekkul ci biiru marché ñu jële ko te bu ñu fàttali ko Abdou Karim Fofana mi ñu dénk loolu ñëwoon na fi Touba ci ginnaaw lu toll ci ñetti weer ñeenti weer ci biir discours am boole woon na ca ne ñu xalaat ne bu ñu agsee Touba marché gerte bi danañ ko génn biir dëkk bi mu Abdou Karim waxoon na ko waaye laataa ma koy wax fekk na kilifay dëkk bi xalaat nañ ci ba am ay kilifa yu jotoon joxe ay terrain wax ne sëñ Ahmadul Moxtaar am na terrain bu mu joxe woon gannaaw bi ñu wax ne sëñ Abdul Fattah am na terrain bu mu joxe woon ñooñu ba ñu joxe seen terrain yooyu lépp bëgg a defar Tuubaa rek tax ñu jafe joxe ko bëgg itam liggéey boobu ñu yóbbu ko fa yaatu ndax laat yóbbu daral ga ginnaaw ndindi yóbbu ko ginnaaw kon kàbbu te mu nekkoon fii ci dëkk bi loolu moo tax gerte gi itam bu ñu ko war a yóbbu ci bitti jàpp naa ne ña ña fa nekk yóbbu ga du leen war a diis moo tax sëñ Muntaxa ne nañ xam le ne moom joxe na ndigal ci marché gerte bi ñu génne ko ci bitti dëkk ba jox na ko ñii di saytu dëkk bi buñ ko fa yóbboo ña fi nekk kenn ku nekk ñu wutal la barab boo xam ne dana méngoog bi nga nekkoon ci biir dëkk bi nga nekk fa di fa wéyal di fa daan sa doole di fa dàq sa wërsëg di fa liggéeyal Sëriñ Tuubaa boobaa mooy gën ti ñoom mooy gën ci dëkk bi mooy gën ci ñi dëkkee dëkk bi ci wàllu wér-gu-yaram rawatina ndax nit ki lu muy def na ci jiital ak wér bala ñoo jaamu yàlla dañoo mën a wér bala ñoo mën a lekk mu jàll dañoo mën a wér kon luy tax wér a am loolu la sëñ bëgg kon nag loolu moo tax sëñ bi bëgg ñu jële fa lépp ñu dem ndax camion yi daale woon nañ ko waaye camion yi marché bi moo leen fi andi bu fi marché bi nekkul kay camion yi duñ fa nekk ndax camion yi bu fi marché bi nekkul kon nañ yóbbu marché bi camion yi di deserté ci foofa jaaykat yi dem foofa yóbbu fa marché bi lépp leer boobaa nañ ci sëñ bi lim sell gi mboj dëkk bi dina ci rafet gi mu ci bëgg dina am wér gi mu bëgg dina am jërë ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp